daan combat bi ñu nga a a sifflé diggante Valdo diggante Valdo écurie ak ki nga xamante ne moom mooy caatu Yoff wala caatu Waalo Valdo caatu di ci nuyu Mohamed Ndaw Tyson Mohamed Ndaw Tyson ñu ngi koy nuyu di nuyu Jibi Mbote Valdo moo féete ndeyjoor boo boo waxee Boul Falé sa xel dem ci Aliou Mané waaw ndeysaan sa xel dem ci Gambien xam nga Tyson mooy mbër moo xamante ni la mu tudde woon boppam bul faale Tyson du tontu détail arbitre sifflé na per pala waaw waa waaw arbitre sifflé na de ngeen mbëru Zal Faye bi mbëru Bouba Akim moo jóge moo jóge Basul waaw waaw waaye ay ki muy bëreel Caatu soo waxee mu ne sama yaay si barak la nekk dama ko bëgg a étasal waaw yàlla na ko yàlla yombal loolu te nee na làmb la yaakaar te yombalal ko ñëpp yombalal ko ñëpp amin diggante Valdo ak caatu yoof caatu waalo caatu waalo dañoo bari caatu yoof caatu waalo caatu yarax caatu ngewel caatu mbombay caatu limousine waaw caatu boy bambara kooku bàyyi caatu waalo ay ca Valdo caatu waalo lewaatoo ba sëñ Modou doomu ndeyu liiru jaan borom daara waxtu la nag ñaari mbër yi mayante nañu distance maane si toor nee na ngeen bëre lewaatoo bi yàgg na bëre Valdo moom ngeen jàkkaar lool noonu arbitre atte na leen woo ci digg géew bi ah oui ñi ay léewtoo indiwu leen waaw bëre leen bëre léewtoo bi ah, sax daa sore bëre lañ bëgg a gis bëre lañ bëgg a gis Lamine waaw Valdo Thiatou Walo ñaari mbër yaa ngi def déplacement latéral waaw def yëpp dañuy moytante rek Valdo booy xool benn defet rek la am waaw garga doo ko daan waaw ndeysaan jour boobu Serigne njaay bëri na ci ak franc. kan moo ko daan. garga 2. laa ilaaha illallah. jour boobu franc moo bëree spécial bi. moog Serigne Ndiaye su ma juumul. ah oui. arbitre daf leen di woowaat wax ak ñoom. dina leen avertir. ah oui. waaw daf leen di avertir moom. ku ci nekk am nga benn avertissement. arbitre sifflé waat na. ñu ngi la ko jox ci ñàkk bëre taxaw di leewaatoo xam nga lii père li koy waral dafa mel ni sëriñ yi la ñu naan la bootal sa cumi kaay wala jëlul benn initiative day natt waa rek pour bu jógee mu eh, aji door na ah oui na jël initiative door waxoon naa ko léegi mbër boo ñëwee doo fi nekk di léew too da ngay xeex bëre mais di natt rek di natt rek di natt rek ah baax na. arbitre leen di wala jéggal leen rek. waaw na bëre. waaye jéggal leen seen yaram a tàng. waaye yoon moom yoon rek la. ah dañoo xeex ci biti. yoon yoon la ku ci nekk am nga ñaar avertissement arbitre bi la waat. arbitre. Baldo ba léegi moo féete seen droite. ah. Bargo caat Baldo caat Waalo. Baldo lii caat def moom moo ko waroon na def. moom moo war jël ay initiative am. mais lamb ji du Leewtoo bu rafet na jëlee initiative am waaw nag Père dafa gëj bëre moo tax tey day nekk ci pression ah, du bëgg asaloo ko man te ah, dafa waaye bu fekkee yow yaay yow yaay favori que moo jiitu ci lamb waaw mais dafa gëj a bëre Père caat caat mbëru combat bëreegul sax ay grand combat yu bari waaw kon nag buñ leen boolee dangay ngay fullaal combat bi mais bëgg a yebal say loxo ba jàpp waa ji nànk dugal ko sa bi hmm. loolu loolu du lamb ji Thiat aussi dafa compétir dafa mbapat. Ah, cokkaas na dafa war a ñëw bëre. cokkaas na moom Baldo. Baldo cokkaas. booy seet yow yaa sut yow yaa ëpp poids. door na Baldo fay doon nañu soppala ak Baldo. la eh, door a ak Baldo. door na ko. Thiat bañ na. Oh. eh Thiat Baldo ak Baldo. combat bi dina mën a yomb. man mbapat laa bëggoon ñu def ko ñoom ñaar. mais caat da ko mbapat mi moo tax caat di mu jàpp. waaw waaye Pierre caat ku mën a bëreel. caat bëggul falto ah. jàpp caat dafa mën bëre. waaw dafa mën bëre mais nag moo tax muy dóor. falto moo gën a diis. falto am na ngemb. caatu waalo falto. eh mbaru Zal Faye bi mbaru Bouba Akim falto. nday gay. gay gëj séeri Bouba Boy Djiné wala wala Madji Madji numéro 2. moom day may sànni xeer rek. ku baax la Ndeye Gueye ana Madji Madji borom le 21 avril. moom daa raar sax. waaw daa am combat yay raar. moog Jokal. waaw. eh Baldo ngi fayu de Baldo ngi door Lamine Baldo ngi door Baldo ngi door caatu dem na mbotti Baldo. eh combat bi du yomb de Lamine. Baldo caatu waalo Baldo ngi door xeex ñaari mbër yaa ngi xeex Lamine. Baldo caatu waalo. eh le retour de Baldo. day confirmer waaw wala déet waaye xale bi mu dajel dafa wex xale bi mu dajeel dafa mën a bëre mi temps eh, bëre nee naa la amateurs yi lii lañuy ñuy bëgg di gis ngir am satisfaction mbër yu bëre mbër yu xeex bëre nañu cinq minutes ñoom ñaar xeex nañu bëre nañu père àggaleel ak Modou Baye Fall cinq minutes de lutte pure cinq minutes de bagarre intense aja père mu kaaw àggaleel ak Modou Baye Fall yaa ngi en direct ay wo kon bàyyil ma wax ak kii Modou ñu ngi lay nuyu. waa ñu ngi lay ziar. léegi sa kàddu gu mujj. waaw ñoo ngi ñu ngi bu baax. man na Père mi jaaxal na ma. sant ñaar waa Père Balla ci gàllaaj di wax ne <laughs> ñu ngi woo le 28 janvier incha allah rabi bu ko yàlla innovation yi doo ko wax. non moom moom production moom ku xam journée am xam ne journée li si war yëpp da koy def incha allah kon rendez vous le 28 janvier Boy Sey 2 Anaconda drapeau Go Faye ngel jon kaani sanam drapeau papa euh, drapeau Balla Mbaye depuis Allemagne parrain bi nag Allemagne lay jógee maa li TV dina ñëw non li TV moo yar mooy def lépp kon jeex na li TV si kaw si kanam Boucar maa ngi lay ziar baax la bëgg sëñ Modou jaajëf maa leen di bëgg amal jàmm yow jaajëf Modou Baye Fall ayca Omzo bu gargal ziar naa la taw taw Gourné maa lay bëggee ci jàmm maa ngi ci jàmm baax a baax waaw Mohamed combat bu fekkee mën nga ko wan moom déggal ma nan la Kakour tey Bulldozer seet ah benn la rek maa ngi lay bëgg bu baax a baax. waaw ah, maa ngi lay ziar bu baax nga di nga nuyu di nuyu sama Pala di nuyu xam nga Bukar di nga nuyu bu baax a baax. maa ngi lay bëggee. ñu man damaa juddoo si ëttu mbër. loolu Pala mi sama nijaay la xam nga ñii mënu woon mën a ñàkk kaw waxoon naa ko dinaa du mën naa ko daal. mais dama gis combat bi tey xeexoo lan moo tax xeexoo. waaw kay xeex nañ gisoo. non da nga yéex a dugg ci xeex. waaw non dama xam nga làmb lamb tey jii système nga xam naa ne yàgg-yàgg sama tànk ngay ñëw moo tax xeex bi yu ndax yu ndax xeex bi dëggul bu baax damay bañ mu jël ma ba jeex yaa ngi dégg parce que moom yii nii kese nga am si lamb ji daw jël sama tànk moo tax ma préparé ko bu baax man per man damaa mën a bëre lamb ji mënoo compter cinq mbër yi dàq bëre si lamb te boorema mas ku ko def da ngaa soxla xam nga tax ah, ah Lamine kii dama ko fekk ah, drapeau chef de l'état. jàmbaar la drapeau chef de l'état. ca ca ndar laa ko fekk mu fay bëre ma ne ko yoon wi nga jaar ñëw ci tournoi yi di bëre di wane sa bopp day yokk sa xam-xam yokk sa niveau yaakaar naa ni ba nga ñëwee drapeau chef de l'État jalooro yu bari la fa def kon tey bu mënee ñëwaat nii di wane boppam ba bëre combat bu mel ni gañe ko day wax ne moom mi ngi ci course bi na ko ñëpp jàppale xale la ndaw la te bëgg li muy def waaw. bu subaa bëri ak mbër bu fel kay comme moom waaw man ak moom bëri nañ ba mu jeex yaa nga xam ne ne sekkuñu saagante dëgg la sekkuñu wax bu ñaaw dëgg la lépp ñuy wax si dëgg lañ koy teg dëgg la moom daanaan la maa ngi koy ñaanal yàgg boo amaatee combat yàlla may ko ndam mais lamb fair play la ak discipline ñaari mbër yu am ci acca ñu dem ci combat bi ba pare diggante Baldo ak Caatu Waalo ñu daan ko jippi ndong ñu daan ko woowee Omar de moom la ak Caatu Waalo ñaari mbër yaa ngi lewaatoo ba léegi ginnaaw bu ñu bëree cinq ñëwaat bu kontaan si ñuy bàyyi xel Lutte TV eh xeex ak Thiat xeex Thiat kor na ko ma ngay door ba door mu daanu Thiat jekku na ci jóor yi mu daanu eh Valdo mais mi Thiat Walo mi nekk na de ki mi bëreel mbër bu mag la daa bëgg a bëre waaye caat da koy xañ Lamine Valdo caatu waalo Valdo fayu na Valdo caatu waalo mbaa door mu daanu du am mën Valdo góosam bi la dooroon Amadou Camara mu daanu góosam bi nag xamin Lamine bu si amee li lim si bëgg bu ko amee du baax de te góosam boobu moom lay bëgg a jàppee def action waaye caat koy xañ ñaari mbër yaa nga ca

góosam bii la tuuroon Amadou Camara mu daan. mais mais mais mais mais Valdo Valdo lambam xeex moo ko ciy génne. moo tax ma ne la góosam bi lim si bëgg bu ko amee si caat du baax. Ah, waaw parce que góosam a a xeexee. da koo kaawute. looloo ko handicapé. da kaawute. ak aussi li gëj a bëre père. parce que Lamine su ma mot 5 ba 6 ans gëj naa bëre lool waaw kon bu ñëwee faamu def ndànk pour am ay repère. daan na ko jël bu rëy. mbaru Zal Fay bi. daan naa mbaru Eh, bal door door na ko mu kaaw dogo kaawute mu daw jàpp ko dàq oh. kaawute maa ngi nuyu Edouard Sène maire Ndondol aca ñu eggali maa ngi nuyu Edouard Sène maire Ndondol aca Bulldozer eh, Baldo jàmbaar la le retour signé de Baldo avec un combat technique avec un combat tactique Bulldozer nga ne làmb ji bokk nga ci cinq mbër yi dàq